بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما هذا لي ملين الصدور أجي nooyal xol ya aw mudakkirul qubuur wala aji fàttale bàmmeel ya ne mënees na ko tudde mu layyinu sudur mënees na ko tudde mudakkirul qubuur yaqul dana wax ahmadu ahmadu al mbakki yi kay ko jug mbàkke al murtaji kay aji yaakaar min rabbihi ci boroomam xafoon njéggal wa fataxal murtaji ak ubbi lañu tëj murtaji boobu nag doo ci def yaa bu njëkk bi rek al murtaji bu njëkk bi moo am yaa waaye wa fataxal murtaji foofu la baat bi am sëñ bi taalif ahmadu bamba mbàkke dañ koy wooye mu yaakaar ci boroomam yàlla jéggal ko te ubbil ko lépp lu tëju woon ci kanamam li wax nag mooy alhamdu xeeti cant yépp lillahi ajee la ñeel yàlla ajey la nekk ñeel yàlla allësi yàlla mi nga xam ne at tasawufa tasawuf jaxalahoo def na ko xilma tuqaa muy xam-xam ragal yàlla wa sharafa te mu teral ko bu dee ci jàng naxu moom dañuy bàyyi jaxalahoo jële daal jàng alhamdu lillahi lësi jaxala def na jaxala kese la ñuy def diggante allësi ak tasawufa te bañ caa boolehoo alhamdulillahi lësi jaxala def na ak tasawuf fa tasawuf su boobaa nag ñu bàyyi jaxalawoo jële duñ ko tuddati duñ ko laalate dal cee teg xilma tuqaa wa sharafa dafa tàmbalee sant yàlla mi nga xam ne moo def xam-xamu tasawuf muy xam-xam ragal yàlla te di xam-xam bu tedd subhanahu sorel naa ko lépp lielu ci moom rabban mbir mu mi ab buur xadaa boobu gindi na bil ixtiyaari ci tànn safwatal xabiidi tànnee fu jaam ña li maslakin jëm ci aw yoon sadid wi aji jub dina mi ngi tudd sellu yàlla muy buur boo xam ne ci coobare moo tànn yorante bi awale ko ci yoon wu jub wa almaliki kay aji moom ad dayyaani kadi ab fayaakoon dil xarsi kay boroom xaras almajidi kay aji tedd almubdi kay aji sos mbindeef yi almuidi kay aji delloo mbindeef ya gannaaw buñ ñàkkee dil bat si kay boroom ngëb ga maanaam kay jàpp ak doole ashadidi kay aji tar wala bu delloo ci bat si bi muy ashadidi ga di aji tar nee na yàlla moom moom lépp te kenn ku ne boo lëggee moo lay fay la nga jëfoon mooy boroom aras gu tedd ga ba mbindee fi amutoon moo jekki-jekki sos leen biñ demee ba raaf mel ne mësuñoo am moo leen di amalaat mel ne mësuñoo ñàkk mooy ki nga xam ne kum jàpp ak doole rek nga yëg ni dooleem xajul ci kenn xajul ci lenn alxaalixil insaani mi aji bind nit ci boo ko boolee ñaari baat ni man nga ne nag alxaalix yi kay aji bind al insaana nit wal jinn ak ginne maan boole seen boo ko boolee nag nga ne alxaalixil insaani kay aji bind nit wal jinni ak jinne maxaan boole seen li abudoo ngir ñu jaamu ko muxlisiina mbir mi ñu way sellal aji maxaan boole seen ne yàlla moo sàkk nit ak ginne te wax na ne dara taxul mu sàkk leen lu may ñu gëm ko wéetal ko te jaamu ko nga xam ne kon ngir ñu xam ne rek mooy yàlla te topp ndigalam bàyyi tereem rek moo tax mu sàkk nit ak ginne tu masalaat topp dolli teral wasalaamu ak dolli wóolu majj taxada li fekk farlu na ahlu tuqaa ñooñ ragal yàlla ñooñ ragal yàlla fii taax ci laa ci topp yàlla asamadi kadi kuñ jubli ci aajo al rasuli yàlla nekk ci yonante ba al saahidi kay aji dëddu al awaaxi kadi ab bindi waakoon al mursidil xalqi kay aji jubal mbindeef yi li diinillaahi jëm ci diine yàlla ji li fekk nga xam ne rek ña ragal yàlla tey farlu ñu ngay góor-góor ci topp yàlla te loolu mooy am incha allahu li fekk looloo ngi am rek yàlla na yàlla soxal salaatu salaamu ci yonent bi nga xam ne ku dëddu woon àddina la ku bari loon torox lu jëm ci boroomam la te daan tegtal mbindeef yi diine yàlla ji alqaayili kay aji wax ne adduniya adduna si jun kaso la shadid bi aji tar la naa ñeel nee na moo waxam ne adduna kasob jullit la kaso jullit la mooy boo ko dee seet lu àdduna am neex neex moom jullit bi rek boo ko tolloo rek àjjana jëm jëm bu ëllëgee incha allahu kon day mel ne àdduna kaso la woon ci moom yéefar bi ne moom day mel ne àdduna ajanaam la ndax boo ko tolloo leeg sawara wam jëm bu ëllëgee rek kon lu àddunaam naqari naqari day mel ne mi ngi woon ci ajana muhammadin te mooy muhammad dil xaqali kay boroom xel ma war ra'yi ak xalaat ba assadidi bay aji jub waaw nee na sang bi muy ñaanal salaatu salaamu mooy muhammad boroom xel mu rafet ma boroom xalaat bu jub ba wa baax du gannaaw sant yàlla julli ci yonante bi faalam xamal ànd na xayramaa naka ngeen ci la nga xam ne istaxala soxla woon a fatan astem bi ci moom xel mun moo di xam-xam wa diinullaahi ak diine yàlla ji jàll màgg na gannaaw sant yàlla julli ci yonante bi mi ngi lay xamal ne la lépp lu waaye di yittewoo rek yaar yi moo ci gën te mooy xam lu baax ak sax ci def ko kon xam-xam ak diine te mooy xam lu baax te di ko def ngir yàlla xam safaam di ko moytu ngir yàlla yooyu yaar daal moom nee na lépp lu waaye di téwoo ko góorgóorlu rek yaar yi moo ko gën man faataxoo koo xam ne raw na ko haadani yi la yaar fii duniyaahu ci addunaam ja mustaxileen mbir muy aju soxla woo bil maali ci alal xan mawlaahu walis boroomam ba famaa lahoo déet di ko ñeel xadan ëllëg siwal xasaabi ndare mbugal ga wa niqmatillahi ak fayantoog yàlla ga moom it dana di firi mbugal waaye ndegam alxasa bi da koy jege man nga koy firi noonu bi lartiyaa biñ ci dul benn sikki sàkka nee na yaar yi ku mu raw mooy xam-xam bu sell ak diine ju sell yaar yooyu ku mu raw rek nee na xamal ne raw le nga lu rëy rëy te boo tuut bu la yàlla baaxiwul rek mbugalam métti métti moo lay dal kon képp koo xam ne sàggane ne yaar yee yittewoo rek alali àdduna suba tuut bëggalum yàlla ak fayantoog yàlla gu metti metti dal ko haza jàppal lii wa xayrul xilmi ngën ji xam-xam yaa ixwaani yéen samay mbokk xelmun moo di ab xam-xam yu xarri bu bopp dana jegeñale ila rahmaani jëm ci ajjérame ji ka ilmi tawxid niki xam-xamu tawxid maxat tasawuf ànd ak xam-xamu tasawuf wal fiqi ak fiq waa amaloo kon na ngeen jëfe bila tasawuf ci dul ak yeexamtalu ba ci dul néeg néegal dina xam-xam daa yaatu nag waaye xam-xam ba am solo rek mooy xam-xam bu lay taxee jege yàlla xam-xam bu lay taxee jege yàlla rek mooy xam-xam dëgg-dëgg loolu nag mooy ñetti xam-xam ñi xam-xam bi lay jàngal ni ngay wéetale yàlla teg ko fa nga ko war a teg bi benn ak xam-xam bi lay jàngal lañ la digal noo koy defee ak lañ la tere noo koy moytoo ak xam fa nga war a yem ba bañ koo weesu loolu moo tudd fiq te mooy sharia ak xam-xamu tasawuf na bi nga xam ne moo lay jàngal ni ngay sellale sa digganteeg sa boroom ak sàmm teggin sa digganteeg moom ba mujj mu taamu la boole la ci jaamam ña mu gërëm bi at tawxiid ak fiq ak tasawuf te seeni cosaan moo di iman islaam ihsaan muqaddamatun lii luñ jiital la maanaam lii tàmbalib téere bi la yaa ayyuhal gaadi yow aji xëy ji ila taxallumi jëm ci xamlu xëka jàppal wasiyat yi sama dénkaane waxanam te nga màng lu saat yi sama laabiire yow mi xëy ne daay wuti xam-xam daal nee na dama day bëgg a dénk kat na nga dé na nga jàpp dénkaane bi bu baax a baax muy uqsut na nga jublu at taxalluma xamlu ga li wàcc rabbika ngir jëmmi sa boroom li kay tanaa la ngir nga am al ajra yool ba wa takarruma ak teraanga la nee na daal fexeel ba boo jógee bay jàngi ne yàlla dong mu tax ngay wuti xam-xam bi bëgg xam lu baax daal ba def ko ngir yàlla ak xam safaan ba ba sori ko ngir yàlla daal képp na la tax a jóg soo ko defee da nga am payu yàlla am teraangal yàlla laa taxtu lu banna bul sàkku tala bar riwaayati càkkutéefal nett li ga rek balli fi nekk ut lu banna na nga sàkku tala bat diraayati càkkutéeful xam-xamu diraaya nee na bul sàkku rek xam ni mën a nettali lu bare bare ñu lay yéem da ngay sàkku xam gu ànd ak leer gu ànd ragal yàlla ba nga xamee ne foo toll di teewlu màggaayu yàlla di jëfi ndigalam di bàyyi tereem xam-xam mel noonu xam-xamu diraay mooy la am solo laa taqsud bul jublu istimaalatal insaani sàkkoo jàngal nit ileeka jëm ci yow aw taqaddumal aqraani wala jiitug maasiya nee na xam-xam mi ngay wuti bul ci bëgg rek boo amee xam-xam nit ñi dëgmal ci la wala say moroom ñëw topp ci yow nga nekk seen kanam loolu daal moom xeeb ko bu baax a baax bu mu la yitteel mahma talabta saa yoo sàkkoo alxilma xam-xam min duniyaak ngir sa àdduna rek fa bi anta kon jaay nga uxraak sa àllaaxira bi duniyaa jëndi àdduna isan boobee nee na xam-xam daa am solo lool boo jógee di ko wuti na nga moytu àdduna rek tax nga di ko wuti lu ëpp naa def nee na saa yoo dee sàkku xam-xam ngir àdduna kese kon jaay nga sa àllaaxira ma am solo jëndi àdduna mi nga xam ne amul solo wala sim na nga taqoo alxasiyat ragal yàlla watta adduba ak teggiinu maxat tawaaduhi ànd ak toroxlu takun kon nga nekk mu hazaban di ko ñu sellal yene fexeel ba booy wut xam-xam daal na nga ànd ak teewlu màggaayu yàlla foo toll ànd ak teggiin ànd ak woyoflu foo toll faslun li ab dog la yaa saa ili yow sama aji laaj xan ayi nahjin wël si wuma ci yoon tastafi oo danga ko tànn minal manahiji ci yoon ya li kay maa taqtafi ngir nga topp ko xëka jàppal kitaaban ab téere naa fi xan bu di aj jariñ yajloo boobu dana wuññ assadaa xundooñ ga mooy mar wu metti wa fii sadri siixa yin ci dënub boroomuk réer mayun jiitam yu musale min radan ci alkande assadaa boobu nag boo ko defee nii ñu ko bindee fii alif war yan ra lay firi xundooñ mar wu metti waaye boo ko defee assadaa alif day mel ne kon daa bàyyi ko ci assadaa bi firi xomaak xomaak waaw kon nag loolu moo ko wutale boo ko defee ni alif war yan ra moom day bàyyi ko ci sadiya xundooñ na muy mar na mar wu metti sadan boo ko defee assadaa muy alif nag moom bàyyi ko ci sadi a xomaak na sada an ak xomaak daa wax ne yow mi bëgg a xam yoon wa gën a baax ba mën koo topp yan woowu moom laa lay xamal ci téere bii kon nag jàppal téere bii bu baax a baax bu ko defee rek kon dana setal sa xol ba mu seet wecc nga mucc ci alkande damina làmboona baxdama lenn la nga xam ne xakkaa nettali na ko alxazali xazali wa baxdama ak lenn la nga xam ne xadd naqa la toxal na ko al yeddaali yeddaali téere bi li mu ëmb mooy rek waxi gaa yu baax yi am na ci loo xam ne ci alxazali lañ ko nettalee am na ci loo xam ne ci alyadaali lañ ko toxalee sa maytuhoo tuddi naa ko mu lay yi na sudóori aji nooyal xol ya wala dënn ya li diini jëm ci diine aw mu zakkiral xubóori wala aji fàttalee bàmmeel ya ne daa koy tudde téere buy nooyal sa xol ba sa xol sawar ci diine mbaa boog nga tudde ko téere bu lay fàttali ëllëg deeg dekkeeg bàmmeel ak jëm ci kanam nazamtuhoo way naa ko li koy uddaawiye ngir ma saafara bi ci moom naf si sama bopp
wa kulla raaxibin ak jëpp aji xemmem muntabihin kuy aji yeewu
li xaw li man ngir wax yi ka nga xam ne alhamahoo yenkiwal na ko mawlaahu boroomam minal xoloo mi ci ay xeeti xam-xam maa loo xam ne hadaahu jubale na ko bi ci moom ne wa amur na nga digle bi maaroofin ci njekk mooy ci lu baax wa xayir te nga soppi munkaran lu bon wan sax te nga laabiire wa nabbi te nga yee zaxatiraarin boroomuk waru min karan ci ngëmeen dama taalif téere bi bëgg cee fajtal saa bopp fajtal ci képp koo xam ne dangaa mel ne man bëgg li ma bëgg ndax yonante bi kat moo waxal ne na nga digle lu baax aaye lu bon loolu nag nee na moo tax rek ma taalif téere bi bëgg a digal saa bopp lu baax aaya saa bopp safaan ba te képp ku mel ne man it rek man cee jariñu mën a xam lu baax góorgóorlu ca xam safaan ba te di ko moytu wab da jëkkeel bi naf si ka ci sa bopp in haha na nga ko tere xan nga yihaa walis réeram nga wa jaxal defal jamila ziyihaa aji rafeti waajtaayam mina taqwa mu tukkee ci ragal yàlla dañ ne da ngay njëkke sa bopp aaye ko lépp lu baaxut door a jëm ci keneen nag ndax bay ci sa wewu tànk ngay tàmbale kon ngay tàmbale ci sa bopp fexe yar sa bopp defar sa bopp fexe ba def ko daayal ragal yàlla muy satakaay di sekondaay wa asal danaa ñaan al ilaha buur bi an yusibani mu yool ma subhaanahu sole naa ko lépp li yellu ci moom fii ci moom wa an yu'ina ni ak mu dimbali ma wa an yakoona ak mu nekk xaalisan di aji sell mina riyaa ci ngistal wal xuj bi ak aaw wa sumxati ak ndéggtal naafihan mbir mu muy aji jariñ li ñeel ma damay ñaan yàlla mu nangu ko dafay ma ci tuyaaba dimbali ma bu baax may ma sama jëf seet wecc dara lu koy tilimal mel ne ngistal wala gis sama bopp mbaa di wax lu baax laa defoon ndax ñu naw ma ci mbaa yu demee noonu xeet yooyu yëpp daal maa ngi ñaan mu musal ma ja kon yàlla na ma yàlla musal ci yooyu yëpp te dolli maa jariñ saa yu ne fokkun yàlla na nga nekk yow yàlla moo xaami leen di aj jëfalenti lanaa ñeelnu bi fadlika ci sa ngëneel jami xinaa mboole sunu yaa rabbi yow sama boroom laa bi adlika du ci sag maando sun boroom nun ñëpp yàlla na ngay jëfalenteeg nun ci sa mbaax ci sa ngëneel te bañ a jëflanteeg noonu ci sa maandu ndax boo jëflanteeg noonu ci sa maandu rek ay am fal nasrif nan walbati alxawla wax ja ilaa matlabinaa jëm ci sunu càkkutéef min baadi hamdillah ci gannaaw sant yàlla jàlla màgg na rabbinaa muy sunu borom gannaaw nee na tàmbali naa nag wax li waral téere beeg yépp nag kon noo ngi walbatiku nag jëm ci liñ tax a jóg dëgg-dëgg nag wal nabtadi nan tàmbalee bismillah si ci turu yàlla mi nga xam ne naajoo danañ yaakaar alxabool nangu ko min fu ci moom fii kullimaa ci lépp li nga xam ne naa amal danañu ko jëf fa naqul te noo ngi wax lii te noo ngi tàmbalee ci turu yàlla di yaakaar ci moom mu nangul nu kon noo ngi wax ne yaa ayyuhan nabiyyu yow aji xellu ji daa bàyyil duniyaa ko sa àdduna xablal mamaati ci njëkk deega wax si dante nga jublu uxraak sa alaxira yow mi yeewu daal nee na dalal di bàyyi àdduna mi bala mu laa bàyyi dalal di bàyyi àdduna dëgmal alaxira balaa deexa dikk ndax yàgg-yàgg moom boo ko bàyyi wutit faaw day mujj rek moom bàyyi la kon nag dëgmalal alaxira te wàcc ko bala mu laa wàcc moom da si lan mbir mu ngay aji topp amra ilahika ndigalal sa boroom muy ndigalal sa buur aljali bay aji feeñ muttabihan mbir mu ngay aji topp sunnata xayri rusuli sunnas ngeen ji yonante ya yena nga góorgóorlu ci li yàlla digle nga jéem ko def lépp lum tere nga jéem ko bàyyi sax ci sunna bu baax a baax idi ngir fittibaaxiyaa ci ak topp moom sunna takkoonu ngay nekke saaliman di aji mucc wa fi ixtilaafiha ci ak jiyoog moom it takkoonu ngay nekke zaliman di aji tooñ yéen na nga góorgóorlu ci topp sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax boo toppee sunna rek mucc nga waaye boo jiyonteeg moom rek tooñ nga sa bopp te boo tuut alkande dal la fa ataa dikk na fii wasilati sahaadati ci téere bi ñu wax wasilati sahaada dil jagan yi ñeel ku ñu wax aljagan yi dikk na ca maaloo xam ne askata saxal na li xaasa ñeel li ne boo doon xool wasilatu saxaada bu aljagan yi def da nga ci gis lii ma la wax ne la say boo farlu ci topp sunna bu baax ndax boo toppee sunna rek mucc nga boo jiyoog sunna rek tooñ nga sa bopp te su wut wut alkande dal la fa waa ziban na nga taqoo xala tibaaxi mudbaxi ahli rashadi ci topp yoonu ñoñ njub ga ci topp lu ñu topp ñoon njub ga sax mooy pirim dëgg-dëgg mi waaye man nga ko firi rek ci topp yoonu ñoon njub ga wàcc naa bil bidahi ak teet bidaaya ne foo toll del góorgóorlu ci xam fañu baax ñi awoon nga jéem leen roy aw fañ awoon rek di topp sunna bu baax tey moytu bidaa foo toll fal xayru yiw wa kulluhoo léppam fil ittibaahi nekk na ci topp sunna wa charru ay wa kulluhoo léppam fil ibtidaa yi nekk nañ topp bidaa ndax nee na lu baax lépp ñi ngi koy amee ci topp sunna waaye nag ay woo gis mu dal nit rek mi ngi ko dalee ci topp bidaa kon lu waay am ci yiw mi ngi ko amee ci topp sunna lu dal waay ci ay rek mi ngi ko dalee ci topp bidaa fal maahiru aji ñaw ja àlla bi wuja aji xellu man ka nga xam man mooy ka nga xam ne alqaaha wàcc na ko mu àdduna wa nafsahu te bakkanam ba
nahaha tere na ko xanil hawa walis bànneex ba ba tey mën na an haha daytal na ko moom bakkan ba ba tey rek maanaam men la bu dee ci njàng na xaw dañuy xam ne cosaan la moo doon wa anha nafsahu xanil hawa mbaa wa naha nafsahu xanil hawa nga xam ne anhaha bay mujj ca way wa wala nahaha ba cay mujj day firi rek ba nga xam ne moom lañ fay làq
misaaluha misaalam moom àdduna xajuzatun moo di am màggat mu jigéen daniyatun muy aji suufe xafiyatun mu di aji nëbbu fii atwubin ci ay malaan nafisat ñu di aji gànjaru mbalaan yu foor yax sibuha dana ko jort man na it yax sabuha dana ko jort al ahmaqu aji dofe ja xiina takk tas yi ci waxtu wa dana woddu dana ko jortu xaaniyatan muy jongoma min bax ji daakal malbasi ngir taarub loolale koddaay wayataniite muy sonne bishanihaa ci mbiram min xubbihaa ngir ak soppam mu xaatiban mbir mu muy aji labat ko yarnoo dana jax jax mooy xool jàkk li fawqi thawbihaa ñeel kaw yéreem ya ñeel kaw malaanam ya xataa ida mabtazza ba nga xamee ne futti na maa la nga xam ne xadik tasat woddoo woon na ko wajadaxaa mu fekk ko mu faadatan muy aj rëy biir in tafaxat koog newi na xawraa xay nin tey aji pat bët daata chey bin tey boroom bijaaw laxi bin bi aji tàkk maanaam bijaaw bu bijaaw lool lool rek mun tinatal bu saaxi tey aji xesaw ay tifli mis la tuxlubin kem mbaala mbaal marha haddibin te eji ketambe ay mbari bët daata xalqinte boroom bind ja ni bin bi aji faqiral mooy bind bu gàtt mum tàddatal aliyey ni te aji tàlli yaari njekkikaay mislal xidli bi kem naaga gu yolom ay njekkikaay alxidlib mooy an naaxatu almustarxiyatul aliyatayni wa xaddati mat xaysan ngir mer dalikal muxaatibu joojee aji labat xalaa yadayhi ci yaari loxoom ya yu xaatibu dana yedd nafsahu boppam ina àdduna mën nga koo misaale màggat mu jigéen moo xam ne daa fexe fexe ba sol ay yére yu foora foor
ku ko xamul defe ne ndaw lu jigéen la lu toll ci digg ak ndawam di jongoma joo xam ne yéeme na fekk na yére ya mu sol rek ak na mu soloo rek moo tax muy nuru ndaw lu jongoma waaye màggat la mu màggata màggat ba xubi daas
biir ba rëy yaram wa funki newi bët ya pat bobba bi jaa weex tàll mu naqari xet lool bët bët yam ci patt waaye da ci boole mbari bët ya ketambe mu amee bind bu faqiral bind bu gàtt njekkikaay yi yoloma yolom wàcce wàcce ba mel ne ak naagagu mel noonu
ne góor gu ko séen nag te xamoo ko defe ne jongoma ji mel noonu la da ngay taxaw temm ci di ko labat mu jaral la lu ne boo ca sonnee lool lool nag ba jot ca ba summi yére ya nag fekk ko mu mel nii ñu mujj wax ah rëcc rek fa sës ak di matt ay baaraam di wiccax ndax di rëcc rek ni mu ko bëggee woon ak ni mu ci sonne woon te jaru ko mukk mukk loolee lay rëcc rek bu ko defee di yedd nag boppam ki nga xam ne moo dofee noonu la ko addunay naxe mu wax nag kay yeewu amal lëbi bu daal aji xellu ja fa mata laaqaha saa yu tasee moom yaftash mu gëstu ko wa alqaha te mu wàcc ko baxda fatshiha ci gannaaw ak gëstoom te na ku yeewu moom du seen adduna rek muy raay raay ni mu mel mu daal jekki-jekki topp ci gannaaw àdduna di ko wut déedéet da koy gëstu bu baax a baax xam dëgg-dëggi àdduna ak ni mu ñàkki solo mu daal di koy wacc te dëgmal àllaaxira ma nga xam ne moo amu mucc te moo dul jeex te moo am njariñ wa mattaluha misaal nañ ko moom àdduna bixtilaa mir raaqidi ci géntuk aji nelaw aw bi saraabin wala ci njanuux taxta saxarin ci doon aw doj jaamidin wu di aji dëgër dañuy misaali àdduna géntu kuy nelaw maanaam nit mën nay gént di nelaw nelaw yu neex a neex a neex waaye bu yeewoo rek du gis dara àdduna it noonu la mel loo ci seen day nuru dara waaye dara du ci dara ba tey daañu ko misaale januux januux mooy su naaj wi tàngee dëgg-dëgg boo dee xool ay béréb day mel ne am ndox dafa nekk fekk la fay leer-leeri naaj wu tàng wi rek la wala fi di wax naa naaj waa ngay tëgal doomam bu tàngee jër jër daal daa mbir joo xam ne boo ko dee xool day leer leer mel ni am ndox moo fa nekk te fekk na naaj wu tàng rek la du am ndox waaw mu ne adduna it noonu la mel boo ko dee seen day nuru dara waaye fekk na du dara tudd xiku ka te na reeloo al yow ma tey ji wa tubb kii ka te mu lay jooyloo xaddan ci ëllëg te suru dana bégloo tawran ci ay jamono wata soo ute muy naqaral sarmadan faaw adduna nee na lu doye doy waar la mën na laa reeloo waaye balaa yàgg rek mu daal lay jooyloo te lim lay jooyloo mooy ëpp lam lay reeloo mooy boo dee seet tiis yeeg naqar yeeg coono yi mooy ëpp lool bànneex beeg jàmm ji fa firra na nga daw min xaa ci moom ka firaarin niki ak daw min asadin ci gaynde su mastaxit bi toppang muslu min suumi xaa ci gaafam nga tax wi kon nga làq arraché de jub del daw àdduna ni nga xam ne moom ngay dawee gaynde di muslu gaafuk àdduna mu jege la soo ko defee rek yàlla mën naa def nga am jub madmoonu xaala mu làmboo alxisiyaanu moo di gecci wal fadihatu ak gàcce mbaa toroxte muxalikatun te aji alag la li dil xawaa ñeel borom bànneex xabihatun te aji bon la nee na àdduna daal li mu ëmb lépp mooy toroxte gàcce gu ñaaw a ñaaw te it képp ku ko sopp topp ko di ko wut rek mu dal lay alak tuubaa texe li man ñeel na koo xam ne ashadahoo dëdduloo na ko mawlaahu boroomam fii haa ci àdduna waye bu taxi te muy sàkku allësi la nga xam ne yardaahu na ko gërëm nee na ku yàlla may nga wan gannaaw àdduna dëgmal yàlla ak la mu gërëm daal xamal ne rek yàlla baaxi na la te da nga am texe fii am ko fële albaabu lii moo di buntu ba al awalu bi aji jëkk fii xis may diini ci ñaari xaaji diine buntu bu jëkk baa ngi ni da ci xamle ne diine ñaari xaaj la wax ñaari xaaj ña ak na mu demee ilam xamal bi ànd na diina ci naka diine chatraani yaari wàll la kama imaamu naa naka nga xamee sunu ilimaan alxazali te moo di alxazali xakama àttina bi ci moom nee na ni alxazali waxe diine dafa def ñaari xaaj muy ñaari wàll te fa awalun aji jëkk tarkul manaahi mooy bàyyi tere ya mutlaxan ak luñ mën di doon moo tax mu teg ci makruhan muy lu ñu sib aw muharraman mbaa muy lu ñu araamal fa xaqiqan na nga dëggal wattaani ñaareel bi taaxatul mooy ak topp bi fi anil jasadi ci defuk yaram wa moom nag yaqdiruha dana ko man yaa saax yor sama àndaale kullu ahadin kenn ku ne biñ ne diine ñaari xaaj la dina benn xaaj bi mooy def lañu digle benn xaaj bi mooy bàyyi lañu tere waaye nag ci tudd gi dafa njëkk a tudd bàyyi lañu tere ndax moo gën a jafe door cee teg nag topp lañu digle ba mu tuddee topp lañuy digle nag mu ne moom daanaka ñëpp ko man mbaa boog moo gën a yomb daal moom laakin namal awlu waaye aju jëkk ja ah jasa lottal na alwara mbindee fi illal muhaqiqiina ndare way dëggal ña safwatal bara ñay tànnee fi mbindeef yi ku jëkki nag moom te mooy bàyyi tere yi biir ak bitti muy lu ñu sib muy lu ñu araamal moom nee na moo jafe moom ñu dëggu lool lool te yàlla baaxi leen ñoom rek ñoo koy man min ajli saa ngir lii xaala waxoon na ar rasul yonante ba al mustafa ba di buñ tànn salla yàlla na dolli tedd nga xale yi ci moom rabbu foo boroomam ka mustafa naka mu ko tànne nee na woon innal muhaajira naka aji gàddaay ja allasi mooy ka nga xam ne xadd xaajara gàddaay na suu an aw ñaawteef minal ardi bàyyi ko ci suuf sa allati sa nga xam ne jara xew na fiihaa ca moom nee na bàyyi la ñu tere dafa jafe lool moo tax yonante bi wax ne aji gàddaay dëgg dëgg day mooy ka fexe ba gàddaay la yàlla aaye kon gannaaw la yàlla aaye daal dem sanc ca la mu digle kooka moo gàddaay dëgg dëgg teewul nag ba tey gàddaaye ci suuf soo xam ne dañ fay defu ñaawteef dem làqutu ci suuf soo xam ne mënees na faa topp yàlla moom ba tey gàddaay la te it yiwu rëy rëy la waaye aji gàddaay dëgg dëgg daal mooy kon gannaaw la yàlla aaye dem sanc ca la mu digle al muhaajiru man haajara maa nahallahu anhu al muhaajiru man haajara maa nahallahu anhu wa qaala waxaat na aydan ba tey innama al mujaahidu nag aji jihaad ja man mooy ka nga xam ne yu jaahidu dana jihaad ak nafsahoo bakkanam maxal xawaa ànd ak bànneex ba ba tey yonente bi wax na feneen ne aji jihaad dëgg-dëgg